Bismillahirrahmanirrahim. rahmani alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa ihsanin ila yaumiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñu ngi sunu borom tabarak wa taala fas yéene dikkaat ak yéen sun émission bi ñuy amal alxames yi nekk ci waxtu wi di ci ànd ak al ustaz Serigne Mbaye Dione ñu daal di ñëw rek mu baasaratan suñu laaj bu njëkk mu ne uzkur anwaaxu sabri ngir tontu ci loolu mu ne asabru ala taatillahi taala muñ dafa am ñetti xeet ñetti xeeti muñ ba ci jiitu mooy asabru ala taatillahi taala muñ fexe ba def topp yàlla yi topp yàlla yi muy julli muy woor muy joxe asaka muy def li nga war a def li nga xam ne moom la yàlla sant xam ngeen ne am na coona tuti tuti ngir nga def ko nak faaw nga muñ ngir man ko joxe naka noonu as subru anil masiya muñ moy yalla yi naka noonu tamit li nga xam yalla daf ko téré da ci am yo xam dafa depp ak banex waaw da dafa depp ak banex léegi nak neex neex bobé ci nak nga muñ ko fexé ba do tabbi ci moy yalla yi bu ñettal bi as sabru ala aqdaril mulimati wa hamdulillahi ala kulli hal. muñ ci dogal yàlla yi nga xamne dafa metti bu ko defé ngay sant yàlla ci lépp lu mëna a doon kon lolu moy ñett xeeti muñ yi muñ fexe ba def top yàlla yi waye muñ fexe ba maytu mooy yàlla yi doonte neex na muñ dogal bi nga xamantene suñu borom mo la ko daatoo teg la ko borom bi neena wallahu yuhibbu sabirin yàlla dafa bëgg muñ kat yi yonent bi saa sallam nee na ajaban li amril mumin inna amrahu kulluhu khair نانا يمنا مبرم جلد ندخ مبرم لب يولا من وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن لورنا كان أمك كل عبد جلد إن أصابته سراء سقر فكان خير الله جنا إن أصابته سراء سقر فكان خير الله وإن أصابته ضراء سوراء فكان خير الله رواه مسلم نانا يمنا مبرم جلد من مبرم مم جلد لب يولا loolu na kenn amu ko kudul ab jullit su fekkente ne lu neex dal na ko mu sant yàlla am ci aw yiw waaye tamit ab natt boo ko dalee bu metti mu san mu muñ daal ci amee aw yiw kon ab jullit léppam yiw la loolu nag ab jullit rek moo ko am sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu macha allah barakallahu fiikum wa jazakumullahu xayran kon suñu ñaareel bi mu ni ma diddu sobri lan mooy safaanu muñ kon mbokk yi ñu ñëw si laaj bi njëkk si jotaay tey bi mu ni uskur anwaa sabri mu ni nga tuddal ñu xeetu muñ yi yi nga xam ni moo am mbokk yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax di julli si yonentam bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte bu baax a baax di santat borom bi subhanahu wa taala si xéewalam yi ñuy defal bokk na ci xéewal yooyu may gi ñu may ñu fekke waat alxames tey bi ñu fas yéene ànd ak yéen ci suñu jotaay boo am solo bi nga xam ne dañ koy baaxoo de ànd ak yéen alxames bu jot ci waxtu wi mu nekk jotaay boo xam ni ay laaj ak i tontu la ki nga xam ne moo ñuy féetewoo ci wàllum tontu laaj yi al oustaz Serigne Samb hafizahullahu wa raah kon oustaz ñu ngi lay nuyu di la dalal baax a baax سون الله نيتال مو نه ما دي دو صبر ما دي دو صبر لان موي سفانوب مون تون تي لولو مو نه وهو عدم الصبر على الطاعه وعدم الصبر عن المعصيه وتسخط على الاقدار بالقول او الفعل نياك مون با جيفه جام يالا يينا سانت تا موي دي فات وقتو يي ngir top sa banex wala di ñàkk a koor wala ñàkk a joxe asaka wala yeneen xeeti topp yàlla yi nga xamante ne yu ñu faratal ci yow wala yoo war a coobare wala yëpp coore sa ca nekk nanguwoo ko muñ ba jëfe ko loolu safaanu muñ la naka noonu ñàkk muñ ci tabbi ci mooy yàlla yi ngir bànneex yi ci nekk nga ñàkk ko muñ waaye tamit di saalit ci dogal yi nga xamante ne suñ borom moo ko nattoo teg la ko di saalit ci ay wax wala ci ay jëf bokk na ci li koy melal nag di mébét dee naan lu métti lii moom yàlla naa faf dee jóge fi rek loolu ab jullit du ko def naka noonu darbul xudóodi di dóor say lex di pes sa bopp di yuuxu di xaaju naka noonu sàqu siyaa bi di xotti sa yére ngir dogalub yàlla buñ la teg ngay yuuxu comme ni ko jaahili daan defee naka noonu addu'a ala nafsi bil xalaaki di wax naan man yàlla na ma yàlla teg rek mbugal benn yoon ma juga Chili di jóge ci ma alak di ñaan yàlla sa bopp te loolu lépp li la ko yóbbi rek salit ak di ngir natu baham xam suñu borom teg na la ko moo xam da ngaa faatule moo xam da ngaa yàqule moo xam da ngaa am ay ay ay gaañ-gaañ saw yaram wala loola mën dal waaye su boobaa da ngaa war muñ rek te sant bi sallallahu الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وابن ماجه yonent bi salaa salaam nee na nee na ak pay ma ngay toll na nattu ba toll kuñ natt nattu bu mag nga muñ ko suñu borom fay la fay gu mag a mag mu ne yàlla dafay bëgg aw nit bu leen nattoo nee na ku gërëm nee na daa am ngërëmal yàlla waaye koo xam ne da ngaa saalit danga am sànja borom bi tabaraka wa taala maanaam ku mer ngir dogal bi yàlla bu mu la teg da nga am ab sànja kon nit ki bu ko yàlla natoo daf koy muñ loolu lan natt ba gën a rëy rek bay ya gën a bari suñu laajum ñetteel mu ne uskuru xuluqu taawun tuddal jikko ji nga xam ne mooy jikkoy dimbalante nga toon ci loolu mu ne li linnaasi fi ma baynahum ala alxaq wal xayri taawun naasi di nit ñi ci nekk seen diggante ci ak dëgg ak aw aw yiw melal ko mu ne suwaru taawun lii melal di ko jëmmal dimbalante diggante jullit ñi a taawunu fi raddil xuquuq dimbalante ci delloo ak yi ku ñu tooñ xañ ko àqam ñu jàppalante moom dimbali ko fexe ba delloo ko àqam comme ni ko yéen sax sa waxee ne unzur axaaka zaliman aw masluman dimbalil sa mbokk moo xam daa tooñ wala dañ koo tooñ kon dimbalante ci delloo àq yi loolu dañ ciy dimbalante naka noonu a taawunu fi raddi zalim dimbalante ci delloo tooñu ko aji tooñ ko tooñu jàpp sa loxo xamal na la yaa tooñ waaye nag noonu a taawunu fi sabbi haajaati naasi wal masaakin dimbalante ci fajal nit ñi seeni aajo ak dimbali miskin way ñàkk yi naka noonu ataawunu ala kulli khair dimbalante ci wépp yi wu mën don lépp lu bax rek julit ci dimbali moromum julitam loolu lépp day feñal dimbalante ci gi nga xamne ne sun borom santane naka noonu adamu ta'awunu ala al ismi wala ada wala udwaani moytoo di dimbalante ci lo xamne bakar la lo xamne lor la lo xamne ak togn la jalgati la sunu borom tabaraka taala neena وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب سوره المائده borom bi nee na na ngeen di dimbalante ci lu baax ci njëkk ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar ak ay yàlla wala jalgati ragal leen yàlla te xam ne yàlla kat ku tar mbugal la kon nañuy dimbalante ci lu baax te bañ dimbalante ci safaan bi jël nañ ci yonent ne sallallahu alayhi wasallam mu ne al muminu baax mumini kal baax yashuddu mu ba'da muttafaqun alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jullit ak moroom jullitam dañuy mel ne benn tabax nga xam ne ni birig yi jàppante dañuy dëgëralante birig bu nekk dafa jàpp ca morom ma beneen morom birigam jàpp ci moom ñu jàppante ba dëgër këng jullit ak moromam tamit noonu la ñuy jàppante comme ni nga xamante ne noonu la birig yi di jàppante ba nekk benn miir benn tabax ba tey yonente bi saa sallam nee na al muslimu axul muslim jullit jullit mooy mbokkam laa yaslimuhu wala yuslimuhu du ko tooñ waaye tamit du ko jébbale mooy du ko seetaan buñ ko tooñee ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته képp koo xam ne mi ngi ci aajo mbokkam yàlla nekk ci ay aajoom maanaam kuy dox ngir faj sa aajo mbokk yàlla ma ngay faj sa aajo wa man faraja an muslimin kurbatan koo xam ne wuññil nga ab jullit benn njàqare faraja allahu anhu kurbatan min kurbaati yawma alqiyama yàlla da la wuññil ak njàqare ca njàqare bis penc wa man satara musliman koo xam ne suturaal na ab jullit satarahu allahu yawma alqiyamati yàlla da la suturaal bis penc xadis boobu xadis bu wér la boo xam ne Buxaari ak Muslim bokk na ñettali ko kon jullit ak moroomam dañuy dimbalante di suturalante di wuñulante ay njàqare waaye di fajante ay aajo su ko defee yàlla di daal di taxaw seeni aajo di leen dimbali ñoom itam ñoom jullit ñi kon loolu moo doon suñu bindu tey ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu ak yombal hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi ajmain macha allah barakallahu fiikum wa jazakumullahu xeyran kon laaj bu ñetteel bi mooy laaj bi nga xam ni moo mujj si jotaay tey bi mu ni uskur xuluqu taawun euh, nga tuddal ñu jikko bii di dimbali macha allah barakallahu fiikum wa jazakumullahu xeyran kon mbokk yi li moo nekkoon suñu jotaay tey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal oustaz baax a baax دلنا جخ رانديو بنا الخمس إن شاء الله ربي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين